de la ville noo koy siyaar màggal daaru moxti gi weesu sëñ Abdou Mbaye Cheikh Khady moo nu nuyoole ñaan kóolute gi na am ci moom yàlla ko matal ba def ci lu kawe njortam du ma taxaw fii nag te nuyuwuma le maire sortant Moussa Sy fii lañ fekk ci biir

di nuyu ñi nga àndal ñëpp ci barke Serigne Massamba Sama di ziar bu baax délégation yi fi di leen nuyu nuyoo mbooloo bi maa ngi koy teg ci loxol Serigne Matar Boy bu jàll la ci ñëpp Baye Abdou maa ngi nuyu baax a amoon naa la amoon naa la loolu di nuyu jàngkat yi. waaye di nuyu seen Cheikh Lo nga xam ne surtout seen Dame Abdourahmane Lo la di sunu xarit bari plateau yu bari mu ci wéttali ngeen koy gis ak seen Moustapha Kane seen Moustapha waroon naa ñëw waaye promo bi ñoo jëm ci sëñ Mountakha man ca laa waroon a ànd waaye dama ne leen comme bis bii la na Moustapha dem di ziar baax waa Talibe TV suñu gaal 24 ñoom dañoo bëgg a defar man émission mu xat ma ne leen nañ leen dajee meeru Moussa ndax li ngeen may laaj moom laa fay wax rek génn mu sëriñ bi di siyaar su suñu seex bi seex Ablaye ñu lay bëgg baax a baax di la nam ziar sunu sang bi Guèye di ko ñaanal itam sëñ Abdou Wahab Guèye di ñaan suñu borom guddal fanam te wéral ko lool barke borom Touba soxna Aïda Diop gaa bi anamu gisuma la sama mos maa ngi lay ziar waxtaan wi sax tuuti bay ko doon tudde tey waaye tudde la ko maa ngi lay dégg bu baax a baax madame Fall maa ngi koy ziar xaw na maa gëtan ci téléphone bi sax rond point Colobane laa nekk ak Xaadim Samb ñoo ànd moom Cheikh Bass Abdou Khadre di ñëw rond point bi xat ma xam ni moo bay moo seen sugu ñi ma teg soog tey tey laa mos a dégg seen sugu wax ba gëdd ma tey ma ne ko bàyyi sugu maa ngi ñëw mais ndekete murit du ñàkk technique xaadim laa ne ko teel volant bi mu téye ko ma tourné yem ci am cek-cek bu ma romb rek ñu ne Mame Mor ma ne waaw tey de cek cek laa jël dara jee Xaadimu Rasuul moo a wàcce fii dëkk nag dëkk de cek tey laa xam njëriñu cek cek amul tiyaas bu na tàcc jël leen cek cek bu dee ku mel ni sëñ sugu nag boobaa naa day nëbb bu jaaw bi rek daal di maskawu boobaa duñ ko xàmme mais man moom amul problème mu mel ne lii mu def yàgg na lool nu koy waajale bis bi nga xam ni yeneen bis yi buñ ko talee sax bis bi tax oustaz maa ngi lay nuyu oustaz Babacar sama xarit la loolu maa ngi koy nuyu di ko defal mention spéciale sa taxawaay sa ku ne xam nga xam na ni cërub si daas Malick la waaye Sëñ Tuubaa bàyyi woo kenn loolu ci la wi waxtaane na boppam mois nuy mois de septembre fan yu ñu dem ci julli géej te duñ septembre ci lañ def ñaari rakkay ndar muy le 5 bi passé bi après avoir examiné certains problèmes relatifs à la colonie le conseil a approuvé la décision des membres aussi désignés d'exiler au Gabon le marabout Cheikh Ahmad qui doit être embarqué le 21 septembre 1895 une pension de 50 francs par mois lui sera accordée durant son séjour au Gabon Gabon googu nu ko yóbbu woon nag gum waay gëm Sauf seen Tuubaa soo fa tegee sa tànk sa gëm seen Tuubaa yo ndax yàlla yàlla kenn du ko gëm ci li mën a ne yàlla liñ ko gëmee yëpp mooy li mënut nekk suuf si lu ko téye ba daanuwul asamaan si léeg-léeg ngay xool benn biddiw ne mais lii ban électricien moo ko defee yonent yàlla Iisaa amul bàyyi yooyu lañ gëmee yàlla riñaanu yonent bi créé ku mel ni Sidi Hadj Malick créé ku mel ni Seydina Limaamu mu mën a wax géej gi randu mu randu yooyu lañ gëmee yàlla loolu nag ko ko defoon moo internet Serigne Touba Gabon tubaab yi saa su ne ñu ngi ci pexem jële ko fi te mënuñu ko faat te attention de Albury buur la bi mu ñëwee war a xeex ak Serigne bi war a xeex ak tubaab bi Albury dafa ñëw ci Serigne Touba. nasaraan mi ñëw na noonu ci ay wi sëñ Tuubaa ne ko ndax boo xiifee yëg ko mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko ndax boo maree yëg ko mu ne ko waaw waaw ko boo gëmmintoo mu ko damay nelaw yi sëñ Tuubaa ko bu fi xaar tubaab bi moo la man sëriñ bi ne ko waxtu ba waxtu yu dellu si alal mu ngeen koy woowee mu ne ko loolu mooy vingt quatre ci ñoom mu ne ko yii ma la limal yëpp ku koy yëg bu nu jëflanteeg yow dinañ la sant nga def tere la nga bàyyi wala nu fàtt loolu la man Alboury d'accord ak moom Lat Joor Ngoone Latiir bi muy bëgg a xeex ak tubaab bi Mbàkke Kajoor la ñëw fekk sëriñ bi sëñ Tuubaa ne ko looy wut mu ne ko nasaraan baa nga jëm deqale mooy kër ga ma gën a fonk njaboot gaa fa ne suñ ma fa jiitoo danañ rey njaboot ga te Mbàkke ñaanal ma sëriñ Tuubaa ne ko sumil sa yére xare yii def ne Ibra Faal ma ñàkk fii foofa duñ fa yàq dara Lat Joor ne Sëñ Tuubaa gëm naa ni mën nga ko waaye Kajoor nee nañ ma yow ba noppi boo ma ñaanalee bu ma demee ca xare ba dina am ndam Sëñ Tuubaa summi mbubbam jox ko Lat Joor ne ko solal mu sol sëriñ bi jël gémmiñu fetal bi ñaan tifli ci ndekete lëkkale na ko ahlu badri ne ko la joor mu ne ma ko boo demee xare ba dana neex waaye bul kañu santal bal bu mu dóor 33 officiers ñooy daanu xol ba sedd mu ne kor joor ak joor càmm ñàll ngeen jërëjëf may nu jërëjëf jërëjëf nga xam ni Lat Joor xare boobu ci la boo ko toppee foofu dem ci warafalu suñ gaawaan ba nattoo di kerkulaani awliyaa yi ku weddi laajal xayrul anbiyaa yi di nga dégg ñu naan bu ngeen gëmut li yéen muri ci gaawaan ngeen daal di yër téere ayaati hawaan xam ni kon bu du koon ak français mbir yi amoon dana amaat fi lañ defoon gars yi gëmoon yeneen ba misaal mi war naa feeñ ci gars yi Bamba waaye France nat na góori Sénégal ñii mu fetal ñii mu dugal ci seeni gaal ñi génn gàddaay fat dem ba faatu ñee joxe seeni ngànnaay ndax ñu yaatu foog nañ saamoori ci réewi soose yóbbu Gabon booleeg Barama Cissé taali ko pour ba nuy lakke mbulañse yëpp ko ca biir laaw la ba français ñoo génn lambi jul di réewi ñooro rey màkki doom ja jàll Fuuta Tooro ñoo génne almaami Ali Bokar Ahmadou Seexu jàpp Abdou Khadir daal di jàpp almaami Abdou Bokar yóbbu Gabon doom dañu woon ko Puuta buru Kajoor yi fi nekkoon di baawoon ñu rey leen xëy taxawal Tiwaawan raatale doomi buuree woon fa Saalum raatale Siin gànnaar taxaw ni maalum sëriñ si woon diggante wàllum njàmbur ñu jàpp leen kenn defatul ab jàmbur ay na sëriñ màkk siise biraamo xaali ñoo ko ni cas moo kuy xaali sibtu ma tar ndumbe mi sancoon sànq dem Côte d'Ivoire rey dékku jomaati ala bis bii nu jëm yàllaa ko moom murid yi moomu leen ko maa yónni ne ma yóbbul délégation Tivaouane ci Sëñ Abdu Lahat nee na ma ñëw ci Sëñ Abdu Lahat di lim délégation yu Sëñ Abdu Lahat ne ma génn ci sa bopp yow bokkoo ci délégation bi gan yëpp yaa leen di dalal yaa leen di gàttandu yaa leen di gunge sëñ Maodo nee na loolu doyatul Sëñ Abdu Lahat jël caabi biiru néegam jox ma man doo mujj nekk bëkk néegu sëñ Abdoulaye eh jàmbaar ji ñuy jooy te noppeegunu sëñ Abdoulaye cawlaay bu mosaan a ñëw màggal sëñ Abdoulaye danaan ko génnal wax ak taalibi sëñ Tuubaa yi waaw nga ñëw sëñ Ahmad Badiou mu la waxal gaañ sëriñu Marème sëñ Ahmad Badiou l'homme de Rawdu Rayaahiin l'homme de université Cheikh Ahmadou Bamba su ne julleen bii boo doon tudd Cheikh Ibrahima ñëpp doo ko lekk faaw nga tudd sëñ Ahmad Badawi doo jël moom laa soxla woon cinq millions bii récupéré naa ko dimbali nga ma Babacar yaay nante yàlla dogal man mii maa dem Mayumba un forêt vierge c'est la première fois un nègre africain taxaw foofu wax ne raditu ani baax yi waanu xayri xamidi wa fii matihi jawastu c'est la première fois nit ku ñuul taxaw foofu ne fii laa jékkee kaab ak asa foofu ci Mayomba xam Mayomba mi ngi frontière ak dëkk bu ñuy ci Banga rëcc baa nga ak Mayumba bàyyi ko cent kilomètres bi gën a jege Mayumba cent kilomètres la ko soree animaux sauvages yi rayé o ak Congo Brazzaville entre Libreville Mayumba maa ko natt léegi ñoom amuñu woon ndox quartier gi fa nekk ñu benn secteur teg ko foofu di juróom maam secteur bi moo yor quartier bi waaye sëñ tubaab ci lay jàpp moom mais tubaab ndeke la tubaab xamut jàpp ñoom ñëpp ñu réunion ne sëñ bi day yàq ndox moom naanu ci defu ci dara lu dul dañuy gis mu def nii rek

génn ñu liggéey muy taw rek arrêté wul ñu toog ba mu kenn ci ñoom yi am technique nous ci commandant ne ko commandant seen lu naa nga ndox commandant bi commencé sixième saa Nous mu ci ndox mi ñëw fekk mu wàcce kàddoom ne ko maaraabu ndox mi jaaxalul sëñ bi ne ko daa jot ndigal rek mu daal ne sëñ bi waaw doo ñaan sa mu téye ndox mi ne ko bu téye ndox mi ngeen téye seen ndox duma am ndox ñu ne ko kon yow tere gi ñu tere ndox mi moo tax muy taw mu ne leen di ngeen ma téye sama ndox daal ñaan naa leen ndox ngeen bañ ñaan naa ki leen moom moom ndox waaw yi xam ni seen problème mi ngi bëgg a bari ñu ne sëñ Tuubaa léegi dañ lay ñaan nu la neex def ko ci ndox mi mais taw bii moom na taxaw ci la leen ñaan ci la leen may ñu bàyyi ko am ci nag ci commandant yi dafa am commandant bu mag ak bu ndaw bu mag bi mooy jox ordre bu ndaw bi mais bu ndaw bi dafa yërëm sëñ bi sëñ Tuubaa nee na buñ mosaana xot xëy ba sol seen dàll weñ yooyu leer na ma ne keroog fitna laa yëngu nettali na ko fii soxna Fatou Dia doomam ne ko am na benn bis li ñuy def am xar def nañ na ko tër di rendi loolu sunu sëriñ teg na ci commandant yi nag bu bu mag bi nag dafa soxor daa bañ sëñ bi moom bu ndaw bi sax léeg-léeg day ja bàyyi guddi mu ñu ne ko maaraabu subaa dinañ la def nangam ak nangam waaye sëñ bi nee na daa baax rek waaye luñ may bëgg a def fekk na rasulullahi salaa alayhi wa li mu xaatabanteeg man mooy luñ lay bëgg a def suba dinaa la ko wax ci guddi. mu koy sonal. commandant bu ndaw bi ñu déplacé bu mag bi daal di def pour bi doonoon bu ndaw nekk bu mag bi mu ñëw commencé feera toll di wëlis sëñ bi ne ko looy mel ne ko peegraay mooy mooy bég mu ne ko mbàkke leen rek a tax bég bis ni ka tey kenn dootu na teg coono ndax ki nekkoon bu mag dem na man maay bu mag bi fii ba ba nga fii jógee dootoo dégg la naqari te moom li waxoon ak boromam mooy ay nattu lañ lay teg te matagul sëriñ bi wan ko ginnaaw ñaan yàlla moom ñu jëlee ko fi loolu doyul commandant boobu dem na ba gisatul sëñ Tuubaa da koy bind lettre parce que ñu ngi ko déplacé yóbbu ko Loango mais da daan bind sëñ Tuubaa lettre maa yomb di ko tontu di wax cofeelam ci sëriñ ñu jëlee sëñ Tuubaa ci géej gi 1902 mu ñëw Daaru Marnaan tubaab bi di ko bindi lekk ñu jël sëñ Tuubaa yóbbu ko gànnaar tubaab bi te xam ne mi ngi gànnaar muy bindanteeg sëñ bi lettre li may wax mi ngi ci Irwa Nadim bu sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana li may wax mi ngi ci téeléb sëñ Alaaji Mbàkke moom sëñ Moustapha sax li may wax mi ngi ci jasaw sakuur bu naar boobu ñuy wax Abdou Latif sëñ bi toog lu yàgg gisul lettre tubaab mu laaj boroomam ndekete tubaab bi daa faatu sëñ bi nee ma ñaan sama boroom dem sawara bi gën a sedd ba bi ci gën a tàng gisuma tubaab bi fenn nee ma jóge fa ñëw laxraaf fekk ma ko fa nee na ma tàmbalee ci àjjana ci gën a ndaw ba ca ba gën a kawe ma fekk fa àjjana firdawsi urul ay nii di ko joow ci njoowaanu urus moom tubaab bi sëñ tubaab ni ko lan moo la indi fii mu ne ko bëgg gi ma la bëggoon kenn gars Iblis ñi ko bëgg ñëpp xam nañ ñu ña nga sawar Iblis Iblis ñi ko topp bëgg ko mais borom xam-xam yi maase nañu sawar nañ jëm mais daal mooy yàlla rek ba am loolu waa ki jaamu yàlla nag ba yàlla may ko loolu soo ko weddee yàlla fi nga xam ne damay tënk rek damay tënk. tey damay dem direct Mayumba Mayumba ci lañ toog ba mu yàgg li may wax xam nga sëñ Moustapha Lo xamoon ngeen ko sëñ Abdou Wahab sëñ Moustapha Lo mooy way juru imaamu Masalikul Jinaan sëñ Basirou Lo ak sëñ Xaadim Lo sëñ moo leen meññ C'est Moustapha Lo sëñ Dame Abdourahmane Lo moo l'eau, jur Moustapha Lo soxna muslim moom sëñ Touba c'est ko jur li may wax moom moko, ko un xam nga sëñ Cheikh Mbacke moo dàqoon a tukki chien lu am ci yow rek Cheikh la la la tukki tukki ne maa yomb laa bëgg dem ñu ne ko foofu mënu faa dem en 1973 la ñëw Gabon bëgg dem maa yomb ñu ne ko foofu du barab bu mën a dem bu bàyyi. sëñ Moustapha Lo nee na ma ñëw Gabon dem Ndiolé fa lañ denc Samori Libreville lay wàcc. ñëw lambare na nee bi ma ñëwee Port Gentil maa ngi dal ak taalibe maam Cheikh Anta bu ñuy wax ma jaxeer caam nee ma ne ko man de benn problème laa am pour dem Mayumba nee na muritu Mayumba yëpp ne ko xanaa xamoo la xew foofu mënoo faa dem kon tubaab bi daal sànni ji woon sëñ tubaab li may wax damaa bëgg ñu déglu ko attentivement daa am fu ma jëm moo tax may indi sëñ Moustapha Lo sëñ Moustapha nee ah comme naa bàyyi rek xëy na dafa bokkul ci barab yi ma war a dem nee na benn bis ma na ko pourcent kii ñu ne de maire bi fi ne daf ñuy dimbali ñun taalibe yi ginnaaw surtout suñ tubaab nga nañ dem ma nuyoo laa ko nga ñaanal ko ba mu yëg ne lim ñuy def ñun yëg nañu ko bi mu mu ne ko kii sëtu sëñ Tuubaa moo jur yaayam maire bi ne ko kon dem nga fi sa maam demoon yëpp sëñ Moustapha nee na ma ne ko waaw dem naa fépp de waaye maa yomba lañ ma wax ne mënuma faa dem maire bi daal na ko man am naa sama xaritu tubaab bu fa am chantier dafay dagg ay bant mais avion la yor bu ndaw suba dina fi ñëw bu ginnaaw ëllëgee nag ma ja xeer ñëw ndax mu bu dem mu mën laa yóbbaale bi mu ñëwee ma jaxeer nee na bi ma ñëwee ci maire bi maire bi ne ko lenn dem moo mën a ne tubaab bi daal ne daal daal daal di ne ko maire bi ne ko tubaab bi nee na mën na koo yóbbaale mais ci condition bi jëkk garanteem yoru bi ci topp pour moo poids am boo pee 60 kilos du dem moo des ci poids avion ndax li mu war a yëpp looloo ci des ne ko bi ci topp tam samedi suba lay dem mais ba ca toppaat lay ñëw lu ko fa dalit moo rek moo ko des sëñ Moussa Fall ne ko nangu naa bi ci topp mu ne ko waaye dina ma jox 30 000 francs sëñ Moustapha nee ma ne nangu naa nee bi ma ñëwee peese ma maag sama poids mu mat sëkk nee na ma yéeg nee na avion bi benn tubaab moo dugg tubaab bi ci kanam man ci ginnaaw laa ne biñ demee ba dëkk bu tudd Ngamba man man bi may dem Gabon bi may dem Mayumba dëkk bu ma romb dama koo bind ay moom paaga i tembele am na dëkk bu tudd Yamba am na dëkk bu tudd Mayanga am na dëkk bu tudd Muyla am na dëkk bu tudd Fugamu am na dëkk bu tudd Pont Abodo am na dëkk bu tudd dëkk yi maa ngi bind yëpp parce que man nelawuma parce que gëstukat laa koy def du ma nelaw tableau bu ma romb dama koo bind foofu ngay gis ñu ma gis ñu wékk ay golo yu nëb ma laaj ñu ne ma neew bii day fekk may wax ñu naan ma am na benn paa gabonais naan ma xanaa toggaluñu la ci bafatoria ma ne ko luy bafatoria bi ma ko laajtee ndekete mooy mbaxal mu tooy ne mbaxal mu tooy mbaxalum golo mu tooy civilisation tuuti duñ ko am foofu ngay gis nit ku ngem xamul mbu ku xamul tubi boo déggee sëñ Moussa Ka di wax naan ay timileeku groupe boo ñu néew maan ñu ñàkk sol fi may tënkee sëñ Moussa Fallou nee na bi waa ji wàccee tubaab bi wàccee nee na bi na ma jógee ci ginnaaw ñëw ci kanam ndax avion bi équilibré nee ma ñëw jege ko muy dawal ndekete nee na waa jaa mandi mandi mu waxal nee na man li ma jëkk xalaat mooy waaw kii bu këppee avion bi ma faatu man kan moo may julli ba mu yàgg nee ma ne waaye sayid laa doon te sayid kenn du ko loo nee na mu daal di ñëw ba ci digg ma mu ma ci àll ne tàcc ne ma fii laa waxante woon ak yow na ma ne ko waaw fu ma jëm mu ne ko boo toppee tracé bi boo doxee presque ay 3 kilomètres di nga gis benn poste de police waxal ak ñoom en tout cas daal samedi heure bi bu la fekk yow dootoo ñibbi foofu nag Sëñ Tuubaa def na fa juróomi at ci suufu garab bu màngo muy taw noor nawet. Moussa Ka nee na Cheikh Bamba def juróomi at Mayumba kenn waxatul Samba ki dem ba fa. Sëñ Safa Lo nee na may dox ak sama saak ak cere ju ma defaroon nee na ma ñëw ba ci poste de police bi ma nee salaamaaleykum ne leen Sénégal dama ne leen senegal rek nee na benn gabone bi yónni benn waay ne ko demal woon ma a Thiam Ibrahima Ibrahima Sall Ibrahima sàll moomu. taalibe Sidi Nour Tall bu Fatick nee na mu ñëw nuyoog man ma wax ko fi ma bàyyi ko sëñ Tubaay sama maam nee na mu ne poste borom poste bi kii bàyyi leen ma yóbbu ko sama kër am naa gan am naa gan sëñ sa fàllu nee na ma ñëw mu dalal ma ci benn néeg jox ma reer ma reer ci la ko ni yow am na benn paa boo xam ni mi ngi tudd André Guériga sëñ Tuubaa fekk ko te moom day wax rek naan Ahmadou Bamba di nettali comme yow gëstukat nga te loolu nga doon gëstu soo ko gisee rek na baax nee na maa ngi ñaan sëñ Tuubaa paar yàlla ma ko fekk mu faat nee na mu ne moom bu ma xëyee yóbbu la nee na bi ñu xëyee ba agsi xam nga maa yomb boo àggee fi ñu yóbbu woon sëñ Tuubaa bi bu doon kuy rëcc sax mënta rëcc église bi ak kaa bi ñoo nar àll bi géej na ci kanam ليغي فرونتيرو اك كونغا برازافيل ديسان سي موكو دا مو باخ ني خم نغا فوم مسا ديم رك ني نكو في سي توبا جارنا في اي غرام با سما كوناكري ترا نو الاسلام رك دي باي بي ميي با ما sëñ Moustapha Lo nee na ñu ñëw nuyoo André Guéringa daal di génn mag gën ba kumur yéen yi lépp weex nee ci saa si ñu dem woo benn libanais li tax libanais bi ñëw mooy dégg na français dégg na arab dina mën a wax ak sëñ Moustapha Lo arab wax ak naar bi tubaab wax ak wax ak wax ak wax ak André Guéringa tubaab nee na mu ne kon nee ko Cheikh mooy sama maam André Guiringa daal ne libaane bi nan la nekkee maam mu ne ko nee moo jur sama yaay soxna muslim bi mu ko ko waxee rek André Guiringa daal di cax bopp bi jooy ne ko Ahmadou Bamba kooku xamoon naa ni bala maa faatu lu bokk ci moom dina ma fekk fii ci la ko ne léeg sax ma gis ko fi toppam yàgg ne ko Ahmadou Bamba ak am fit ne ko Ahmadou Bamba ak tuuti te ñeme te ñeme ji wax na ko sëñ Moustapha Lo ñetti yoon toog ba yàgg mu ne ko man maa ngi fàttaliku bis ñu daal di jële benn labbe bu tudd labbe bu jóge longo ñu ne moom mooy ñëw xool mbirum sëñ kon day nuyoo la sëñ Moussa Kane dañoo woolu labbe ya farom ngir jaaxle ñu ñëw ne delloo leen kii mbaa du nu baax le leeram gi sar na ci asamaan ba jabarut sar na fi suuf dàmbe na mulki malakut nuuru jalaala war na koy jalaal nuuru jamaal war na koy jamaal keroog la làbbee wax seen pap ya naan maara bu day borom wilaaya keroog la fóole làbb yëpp booloo di xar xërëm yi ñii di ko ñaan di móolu ñii di ko enket ñii di ko xëbal ñii di ko mét gànnaa yi ñii di màtt làbbe bi bi ñëwee ñu daal di annoncé ci biir ne ku bëgg a xool demee à 15 heures labbe bi ni muy laajee sëriñ bi ñëwal seetaan si André Ngiringa nee na booba xale laa waaye seetaan si naa nee na bi 3 heures jotee la labbe bi agsi ci gaal gi dem jël commandant bi ñu rëkkal ko seen junj yi mu jubal si ci sëñ bi. bi mu ñëwee si sëñ bi làmbe bi bi mu nuyoo bi sëñ bi jox la ko loxo commandant bi tàllal sëñ bi loxo sëñ Tuubaa fil ko ci la làmbe bi ne yéen ñi seetaan si woon ñëpp arrière li quartier gi dàq leen André Guériga nee na ci ñi arrière la bokk nee na làmbe bi di wax ak sëñ bi sëñ bi di ko tontu waaye kenn xamut li mu koy wax quinze heures et demi ba seize heures et demi sëñ ngi wax ak làbbe bu mu koy tontu mu toog ba mu yàgg mu ne ko nii noonu ñuy màggali ni ne ko maa ngi dem làbbe bi de arrière arrière ba yàgg nee na ñu ngi xool làbbe bi làbbe bi daal di tànd sëñ bi fixé xool ko ba yàgg doo ko def ñuy quartier gi ñu ñëw général bi ñëw mu ne ko gis ngeen kii mënalu leen ko dara dangeen ngeen di sonn rek lenn rek kay tax ngeen mënul ko dara ngeen fexe mu def lu naqar yàlla bu dul loolu mënalu leen ko dara ñoom na ñu ne loolu yomb na xam nga nit yàlla yi liñ jegee yàlla noonu la seen bàkkaar di kawe xanaa xamoo nit ku jege yàlla dëgg-dëgg dana àgg ci yàlla bu xalaatee bàkkaar sax day am bàkkaar te Maam Mor Mbaye bu ko xalaatee du am bàkkaar xalaat naan sàngara rek am nga bàkkaaru naan sàngara wala nga mooñ da am bàkkaar bi ci nit yàlla yi ñu daan di dem jël benn jigéen bàyyi ba sëñ bi war a dugg néegam ñu ne ko yow leen rek lañ la sant fexeel ba laal ñu summi ko mu mel na kon ndayam jure ko waaye nee bi sëñ bi ñëwee bëgg a bind ndaw si jóge ci koñ bee ñëw jëm ci moom sëñ Tuba daal di puus na taf ca bee koñ gis nga nee na ni soccet di déplacé woo sëñ bee ko gën a kaw ndaw si damaat ak koñ boobu sëñ bi puusaat bi mu demee ba sonal sëñ bi sëñ bi dem na ba ñàkk ci la sëñ bi gaaw daal di ñëw ci xalima gi mu doon bindee wiccax ko ko mu doon mott sëñ Tuubaa jël këll gi dëpp ko ndaw si toog di fanaan foofu sëñ bi ne ci boppam ñu xëy suba xam naa rek tubaab bi daal ne ah lañ bëggoon xëy na am na ñu ubbi ñoom ñoo tëjoon ñoo tijji gisuñu dara ñu ne sëñ bi ana ndaw suñ fi dugaloon dañ fay dugaloon jigéen mu dëppi këll gi ñu gis mbott mu leen luy nuru lu amul maag lii ñoo fi bokk fanaan coow li nar a bari sëñ bi daal di yu cax ko mbott mu doonaat jigéen ñu ne ko yow lii nu mu mu ne leen bi ngeen ma fi dugalee doon naa ko jéem a ci koñ bee la dem ma mu dem ne ma topp daal lii muy binde bi ma koy jaxee ci laa neraw xamatuma lu xew génn leen ba fi loolu mooy pexe biñ ko mujjee teg ci àddina waaye nag màggal gi waa faral di màggal gi ñun même waa àddina bu nu xamul baatin bi xam nañ saa yi si xanaa. coronavirus daa ñëw ci réew mi ne moonu moom amee nu moo am nu heure bii sañoo woon mu fekk na ci biti restez chez vous ba noppi nu ŋaaw suñuy gémmiñ corona moo soof ñu wàññi sëñ Fall bi ni mu neexee corona ne ko doo am kasu rajab màggal sëñ Abdu Lahat gàmmu Tiwaawan gàmmu Njaasaan corona bis bu mu jub ne la eh, ci biir ñu <laughs> ne police bi ne ci biir màggal yëkkate sa loxo ci kaw na jërëjëfe sëñ Tuba fi la nu fekk dëggëraat ko beneen at ñëw am na waajoo xam ne bu jula duma ko seetaan te mu ne cas contact nangam ko seetaan kuy ñëw monsieur ah d'accord mu mel ne soxna nee na ñoo ngi leen di siyaar baax ñu ngi ministre Amadou noo ngi santaat seen tubaab bu wér bi ah, kon seen sugu seen sugu da ne addi Serigne waaye man daam lu ma bëgg sëñ sugu xamal lu ma bëgg sa addiye ji dina am sa addiye ji dina am jaajëf ah collectif des musulmans de unité ah yéen yéen yéen a moom yi fii ñëw leen toog ba ma jox ma tar boy sëñ bi sax dane nañ ma laajal addiya waaye man ñaari mbir daf maa dal kër ga may dal ca màggal Tuuba daa inondé maa ngay tànq rek nag deuxièmement yéen dégg naa ginaar yi dafa cher ak nag non soble moom day la tere Tuuba jigéen ñi bu leen topp soble manqué la ba ñam Je ngeen soble damay ñaan dëgg sa kaala googu lalal càmm maa ngi lay siyaar càmm càmm damaa bëgg damaa bëgg ñu dajaleel ma fii rek lu mat ñaar fukki junni waaw man dama ciy joxe waaye daa am lu ma ci daa am lu ma fas maa ngi ñaan ci dara jëy Serigne Touba ku ko joxe déwén dina la fi fekkaat lal ko teg leen ko déwén fi la lay baas bi damay garanté ñëpp beneen bi ci topp ku ko joxe maa ngi ñaan Serigne Touba nga màggal màggal gu kenn mësta màggal ren ci dara jëy Rasulullah boo leen ko joxewul ma joxe ko fi mu woon jigéen ju bañ wujju jógal joxe doo ko ku joxe doo am ku joxewul te war a joxe te mën a joxe yàlla na nga am mucc nga am na koo xamante ne day bañ nit ñi xam ne daa bañ wuti danaan kii joxel ma day bañ a jëm jànkati xasida yi na ngeen leen di teral ah jaajëf collectivité religieuse joxe nañ ñoo mujjee ñëw njëkk a joxe atar boy joxe nga moo joxe kenn ku nekk nga dendal jox ko loxo ne ko yàlla na nga màggali jàmm te ñëw jàmm ci dara jëy rasulullah maa ngi siyaar ñépp di jégalu ñëpp des yàlla bëri ci barkeel ci barke Cheikh Khadim waa mairie bi nee nañ dinañ ko joxe waxtaan moo ko Xaadim Samb bi ma gis léegi mooy yoroon bi maa ngi ne di doog a ñëw jërëjëf sant baax a baax di la di la